ñi nga xam ne ñi ñoom ay dealer lañu ak mën nañoo réewu làmmiñ nga fari cent cinquante tonnes jox ko pour mu waxal la lu baax loolu baaxul cim réew day delloo réew ginnaaw daaw nawet bi li ci manqué looloo ko waral ndax liñ ni joxe nañ ko joxewuñ ko ndax buñ ko joxee ci lañ ko joxee ay poste lañ ko engrais bi ñuy wax suuf si dee na ak mu ne engrais bi joxe nañ ko joxe ko nañu contrôler ñi nga xam ne ñooy opérateur yi bari na ñu ñu jox tey jii ni nañu joxee mille tonnes engrais amuñu cent tonnes am na ñu ñu jox cinq mille amuñu mille tonnes am na ñu ñu jox trois mille wala cinq mille tonnes yi gerte amuñu cinq cent tonnes am na ñu ñu jox ñebe amuñu ñebe loolu nag buñ ne dañ koy fóot ci suuf si mu ñor dañuy daaneel réew mi loolu détournement d'objectif la monsieur le président de la république du ma masa nangu ñu continuer di ko def yéen opérateurs yi maa ngi leen kenn kuñ ci jox quota ay milliers de tonnes danaa ñëw ba ci yow ni la fan nga teg sa engrais fan la sa gerte ne fan la sa ñebe ne boo ko amul danañ ko nangu jox ko keneen bàyyi leen tappale yi te liggéey ngir yàlla nit day dundee aw ñaxam Sénégal yi mënuñoo am junni ñuy jox suñuy millions ñoo xam ni ñii jaay tappale rek ak aw neexu làmmiñ la kon ko defee woon daaw dootuma ko nangu loolu damaa bëgg mu leer nañ damaa bëgg mu leer du ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg nañu bàyyi jiw yi ak baykat yi gën ci tool yi ñu dimbali leen encadré leen fexe ba jiw yi àgg ci ñoom. tappale yi bari na njuñ njaaj yi bari na maa ngi avertir ministre de l' agriculture ma directeur de l' agriculture directeur de cabinet leen ne képp koo xam ne jox nañ la jiw ay dix tonnes yokk semence. te amoo tool damay porter plainte ministère bi ak état du Sénégal loolu dama bëgg mu leer nañ waxoon naa ko assemblée tey laa ci gën a taxaw te combat boobu duma ko bàyyi sama bakkan laa ci teg jox leen jiw yi baykat yi sonn nañu li ñuy joxe ci dund di ko dimbalee dañ ko jox ñi nga xam ne sonn nañu te bàyyi nax nit ñi riba day daaneelum réew économie réew tant que nit ña fa nekk ci nit ñi nit ñi ñu lekk riba di jënd kër yi ay milliards di ko yor jënd oto yi centaine de millions bàyyi nit ñi bu ñu añee du ñu reer président na xam ne ministère yi ñu ci bëree bëri da war a génne gouvernement ay sàcc lañu ay sàcc yu wér li ñu leen jox ñu koy bind ci kayit di dappale li ñuy wax dëgg boo leen woo pour ni audience ñu làng loolu na dakk réew mi ñoo ko bopp dañoo waxoon nit ñi danañu def gouvernance sobre et vertueuse